rahmatullah mbokk yi ñuy suivre ci Leewtoo TV dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu nag suñ ko waxee mooy rek waxi suñ borom bi la maanaam ci yàlla ñu jóge te ca la ñuy dellu yàlla nañu yàlla di jégal nag ci yërmandeem ci jaam yi nga xam ne wuyu ji nañ ko li waral nag tey ñu ngi fi Géejawaay fi nekk nag kër suñu papa Mor Faram bi ñu wax ne moo gën àddina ñu ñëw fi nag waaw muy nekkoon ko nga xam ne daal ci liñ mën a wax ñun yaram ak tegginam en tant que kilifa luñ gisoon la ci moom dafa naa mënees koo dégg ci wax joo xam ne wax ju déplacé la wala luñ ne moo ko wax wala nangam wax dëgg yàlla jullit a nga doon gis ci moom saa foo ko fekk. parce que itam li ñu a xam ci moom bëriwul mais li ñu jot xam ci moom daal xam nañ ne ku jullite woon la wax waaw ma maandu na woon que tamit daal waaw mu ngi noonu daal xare ko aljana parce la ñuy wax am na ñoo xam ne xëy na ci ay loxoom la ñu leen xamee bokk na ci ki nga xam ne mooy guy gi maa lay mbër maa lay jaale li ñu bokk di ñaan yàlla yërëm ko te xare Babacar maa lay nuyu maa ngi nuyu sa man taala di wax ni auzu billahi mina seytaani rajim baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naa ni Mor Fadam moom yow mën nga jeex lu bari mën nga Talla na ci wax lu bari àdduna bépp mun na jox lu bari parce que dëpp ngeen ko seen caméra benn bu dul benn du ñaar te defe naa mosu leen gis mu wax positif te am na fan bu nga wax sax day defar loolu la mel comme ci école bi. defe naa mu mujjee intervenir yéen a ko jëlandoo. ci koor gi mais dégg ngeen ni mu waxee te am na loo xam ne kilifa moo ni waxee te loolu moo ci gën a tuuti. moo Fadam bu ñu xam ci moom lu ñu wax fii ba suba du jeex parce que Mor Fadam sama benn kilifa gu mag mu nekk Dubaay Mangane au passage di ko nuyu moom da ngay def dara mu woo la au lieu yow li nga woon wax pour war cee mer mu la nel tekk Mor Fadam nit boobu la da nga naan tekk mais après moom tekkam jooju yow moo lay jaaxal te foo ko fekk kuris gi du jug ci loxo ji. du wax lu mu warta wax te bu waxee kenn du ko ne cim te fu mu dem di nga ko naw lool loolu mooy doomu aadama Mor Faram nii la koo xam ni man li ma gën a marqué ci moom ñëw ci école bi ñu nekk ay 300 nangam ay quelques personnes mais day bot loxo yi ba boobu jamono boobu wër moom wër nii ñuy entraîné day bot loxo ñëw ba ci man dóor dóor ci biir yi du daal dóor dóor dóor dóor ci biir bi daal di ree daal may xëccaat dama defal nangam wallahi boobu laa gëm ni man dinaa nekk champion xamul tax ay nit dañ faa nekkoon ëpp ma talent bi mais man dafa am lu mu gisoon ci man nit la koo xam ne qualité yi bari na boo gisee tey bis bi ni mel réew mi ni mel rek nga xam ne tey yaa quelque chose te fan yëpp defe naa dafa tàngoon te nit la koo xam ne tamit bëgg na suma famille ñëw na Thiénaba ñëwati fa xam na suma sëriñ xam suma yaay suma papa suma famille moo faram du jóge suma kër moom ngay lu ma jiile ak seen président bi duñ jóge suma kër sumay xarit lañ bu paase bi ñoo fa ngi déggante ak moom dem ngeen nga déggante ci démb. maa ngi déggante moom mu ne ma mu ne ma allo ma ne la fekk xam naa numéro man noonu kookal la mu ne ma champion dama la almaan ma ne ko ah almaan pour lan mu ne ma mu ne kii bi euh, euh, kii bi nu ci biir gi damaa feebaroon ko xanaa yëgoo ko man sax xamu nu ma ko wooree ma ne ko feebar man yëgu man tamit damaa feebaroon waaye waaye tëralu ma nag après mu ne ma dama lay tooñ noonu rek xam moom da day kiyante ak man quoi man nga xam naa da nga bëgg ay ginaar rek mu daal ree mu ne ma jili bool na ma benn médecin sax dama bëgg bu traitement yi jeexee nga bool ma ak sa médecin bi la doon faj man waa médecin moom dëgg yàlla man ko loolu daal mënuma doon fat man ko amul problème naa la booleeg moom parce que waree saar moom booleeg moom quoi mais naa la booleeg moom après mu defal ay traitement nii nii ci enseignement lan lañ mën a jàpp tey enseignement comme loo jàng ci moom ak nan la doon jàngalee bari na Babacar boo gisee guy gi nga xam ne changé na ci yu bari yi la matière fi mu toll nii wax ji tey ji ak yërmande ji di ñaan yàlla daal li may lancé lancé appel bi may lancé képp koo xam ne autorité nga te ko doon jàppale tam daal indi tam indi réew mi raaya bu nekk dafa bàyyi njaboot gu sew jàpp ci bu baax a baax a baax a baax ci ginnaawam lu am solo nag laay wax loxo rek mënu lépp benn loxo boo ko déggee mooy kenn ku ne gis sa bopp Babacar yow rek mënoo yor kër Mor Fadam Talla rek mënu ko yor keneen ak keneen mënu ko yor Ngaye Loum mënu ko yor mais kenn ku ne jàppal ni seqoon ak moom kóllëre ñëw ci njaboot bi seq koog ñoom mu continuer lu am solo ngi noonu ay ministre sport lañ koy njëkkee Matar Ba ku baax jëm ci CNG bi xam ne indil leen raaya bu nekk ba ci yow Babacar mii sax ay détails yàlla na ko yàlla yërëm te yeexuñu jërëjëf jërëjëf. waaw man ñu ngi lay delloo ziar. di la jaale li ñu bokk ah. yow su lay laaj dama lay laaj ci lu rek euh, ki fi jóge tey bi Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana loo mën a wax ci moom ci dëkkandoo ak ko am na yàgg ngeen a bokk lu bari. Mor Fadam moom ku ci nekk rek mën nga ko mën nga koo mën nga koo seede Mor su nekk rek mën nga koo seede mais nag man dama ci rawati parce que ko nga xamante ni presque man ak moom 30 ans est ëpp ko sax ba may bëre mbapat laa nekk ak moom ba léegi te yàlla def ñu bokk benn koñ man ak moom jàkkaarloo ay kër mais morfodam nit la ko nga xamante ni pour nga xam ko sax yombul ko gis ci dara loo nga xamante nii ay détails la toujours ni nga koy gisee chaque jours noonu nga koy gisee bu la xisee jox confiance rek jox na la confiance école de lutte bi bi mu ko ubbee mën naa la ni kayit yi ay turam turam moo ci nekk ci kayit mais dafa jël lépp teg ko sama loxo ngay ni ma ngay lum école baa ngi noonu moo fa dem dina toog deux mois du jaar si école bi lépp man sama loxo la ko teg xam nga loolu confiance mënu koo passé mais li ma la mën a xamal mooy. perte nañu nit ko nga xamante ne nii après la ñuy comprendre waaw après la ñuy comprendre mais yàlla na ko yàlla yërëm waaw. ba pare maa lañuy lay jàll li ñu bokk ngay doomu Géejawaay di mbër fii loo ñu mën a wax ci per Mor Fadam Marle. maa ngi lay fay Babacar di la jàll yow it comme ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp waaw doomu Géejawaay Père li ñu mën a wax si moom mooy ku lislaame la koo xamante ne nii ku bëgg doomu aadama la koo xamante ni amut ak kenn xaar ma yàlla. waaw di ko ñaanal yàlla suñu borom bi xaaree ko àjjana rek di wax ne ñëpp a ngi koy métti lu daal waaye yàlla suñu borom bi bu soxlaa ku soxla ñàkk daal. Mhm. jaajëf. di ko ñaanal yàlla jégal ko te xaaree ko àjjana yow tamit bokk nga ci xale yu mu uufoon ci école bi loo ñu mën a wax si moom. waaw mais paa bi moom Mor Faram sunu papa la sunu xarit sunu lépp mën naa ne sunu sunu kilifa daal moo nekkoon sunu lépp. géejawaay gi yëpp a senegal yëpp ñàkk nañ waaw métti trop bilaa wala ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana yi gën a kawe sunu papa sunu xarit sunu lépp mu ne ma géejawaay bilaay walaay Babacar métti na trop mais bàyyi nañ lépp ci loxoy yàlla waaw yàlla na ko yàlla xaare àjjana gën a kawe waaw bokk di ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjana loo ñu mën a wax ci ki fi bàyyi ko tey muy suñu papa Mor Fadam waaw suñu papa Mor Fadam man mënu ma cee wax lu bari parce que su ma ciy wax sama xol lay jeex waa ndax euh, vraiment ñun daf ñoo bokk njaboot ñun waa géejawaay yi te ñun waa géejawaay ñun perte nañ de ñun dañoo perte ak lu làmb dañoo perte perte nañ ku baax ku teey ku yaru vraiment li ma bàyyi bari na ci Père Mor Fadam amul dara loo mën a gis Père Mor Fadam maanaam perte nañ perte nañ waliw quoi lamb ji perte nañ waliw daal lool la laal la mën a wax daal mbër maa ngi lay jaale. waaw maa ngi lay delloo jaale bu baax ñu ñoo ko bokk ñu ñëpp bokk ndax si la nekkoon waaw di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. tey ma doon wax Mor Fadam ay jikkoom ci gën a jàpp yan lay doon ci lu gàtt. waaw loolu moom dañ si sawar wax ndax xam nañ ko depuis ba ñu nekk boole ñu nekk ak Mor nekk nit ku yaru nit ku baax sax bi guy gi wax guy gi nag Mor Fadam wàllu la war loolu nekk mbër wàllu wu dina lax ñu bëri nag nit ko xam ne si kenn foo fekk ay nit ñu xuloo da nga leen di foo fekk nit ku feebar nga woote wala pour dimbale ko soo xoolee dem moom yàlla ko feebar na ay deux trois mais feebar bi tëral ko quoi ngi doon génn dox soo xoolee tey suba fi la toog sànq am na benn maire bu ñëw fi di jooy ñene moon dama yéem quoi ndax moo faram fi la léegi léegi laa ko romb nuyu ko fii la toog heure julli jumaa jot deux heures mu jàpp ba pare dugg si bi kër gi julli ba pare daal doog a nelaw kon nga xam ne kon kii li ko di wax sama dëgg la nit yàlla dëgg la barke Seydina ñu la moom faram moom faram xam naa ne mu ngi si àjjana yi gën a kawe yaa mbër ginnaaw buñ la jaalee lu ñu bokk ñaanal ko yàlla yërëm ko xare ko àjjana tey mu mel ni géejawaay dafa gontoo ak tiis ak naqar waaw kon ni nga ko waxee rek Babacar euh, dañ koy jaale ñëpp daanaka suñu papa Mor Faram ku nekk mu nga ko jaale sa bopp ndax mbaaxaayam oyofam am diine am lislaam ak wax bu rafet ku ko xam-xam ko ci loolu nekk taal bi taalibe Serigne Touba mu sol maanu loolu lépp li nga xamante ne lu rafet la lu baax yaa ngi ko ci gis ak luy jubale doomu yow loo daanaka ñun ñoo ñàkk ay doomam suñu papa mbëri ñépp teew kon loolu moo ne Mor Faram tey ah, bisam bi bis boo xam ne ñëpp a ngi koy ñaan yàlla yàlla dem ko te xaaru yow loo gën a loo jàpp ci moom loo xam ne ba tey koy fàttaliku ci moom ci loo xam ne mbaax la mais loo ci gën a jàpp ndax moom ku baax la comme li sénégalais yëpp wax. waaw ku baax la mooy da woo di la conseil bu amee bis mu ñaanal la yàlla woo la encouragé la. jàpp ci moom moom lépp lu muy wax yow daan la respecté leen seen waajur yi fonk leen seen waajur yi jàpp leen seen waa yi ndax ëllëg mën na leen dimbali. loolu laa gën a jàpp ci moom ci waxam ci ak waxtaan ak man donc maa koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana yi gën a kawe hmm, saraxam yàgg seen lool jërëjëf ko suñu papa Manga ñu ngi lay jaale hmm, suñu papa Mor Fadam di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana tey li xëy wala boog li ñu gontoo ci réew mi daa mel ne lu méttee méttee muy génn àddina am waaw dafa métti na xam nga lu la bett rek mun la mais ñaan yàlla rek ñaan yàlla rek yàlla xare ko àjjana moor fanaam mun naa wax ne du mbër Mor Fadam xolom bi dafa set xor Fadam mun naa témoigner ne fu ñu toogoon mooy ak kurisam di ñaan fu ñu toog mun na toog bañ a wax mais wax bi su jógee kaw mu ne hey bàyyi leen loolu jël leen beneen débat Mor Fadam su doon bëri ak nit sa bëggul mu nàcc bëgg na ñëw jàpp ko bëri ko daan ko kon mun nañu wax ne Mor Fadam nekkul amuloon xol mbër. Mor Fadam éducateur la Mor Fadam formateur la waa Géejawaay yëpp xam nañ ko te gis nga taxawaay waa yëpp taxaw loolu moo woon ne Mor Fadam ku baax la e, lu ñu xam ci Mor Fadam mënuñ ko jeexal parce que xool yi dañu fees dañ ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana tey jotoon nga yaakaar naa ci parce que lu nekk yéen a nekkoon na ay maas ci làmb lu nekk ngeen seq ko mais gis tamit sa taxawaay tey dafa mel ni moom jàmm ji am na seen diggante ak relation bu rafet bi. waaw am na relation bu rafet parce que li ñu xewle woon rek mu ci woon taxaw je pense que suñu max bi élage Hadj Pape mën na ko seede am na ay participation yu ngi ko doon jox tey aussi am na taxaw bu ñu taxaw bu El Hadj euh, taxawee ne am na lu mu def ci dëj bi ñun aussi association en tant que président des anciennes gouraades ñu yëkkati deux cent mille jox ko ne yokk nañ la ko ci wàllu ndawal bi. ci wàllu kii bi waaw kon nag ñu ngi sant yàlla taxawaay bi askan bi da rafet na monde làmb moo ñàkk parce que ku nekk ku egseegul mu ngi woote di laajte daa nit ci dem nañu Touba am kañ la ñu dem Touba kon nag monde làmb ji yépp taxaw na waaw. wala Père Mbow sax laay wax maa ngi lay ziar di la jaale luñ bokk. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di jullu ci yonent bi. di nuyuwaa waa Sénégal di ko jaale ñëpp rawatina Balla Gaye 2 mi toog barki dem boo Njaay la mujj këram père Mor Fadam ñëw toog mu def ci moom teraanga monsieur le maire Alioune Sall ngi toog ñu defal nga tera ñu defal ko teraanga joo xamante ne bu ñaaroon bu ñaaroon ci àddunaam yaakaar naa ni dina bari ñoo xamante ne danañ ko ñee mu ñëw këram fekk ma fa fekk ko fa ñu ko koy jaalee moom Balla Gaye 2 mu def ci paa bi lu am solo li nga xam moom la ndaw di def ci mag kon tey bu yàlla dogalee lii dañ koy sant yàlla li tax mooy kooku kenn du tiit ci moom permoor Mor Fadam ku baax la woon nit ku yiw la woon nit ku dal la woon nit ku yaatu la woon fii ci géejawaay ñun moo doon suñu bàyyi foo musaa fekk Père Mor Fadam kurus gi mi moom dama daa wax ni man mooy dama koy def wàllu yu mbër yi ndax foo ko fekk mi ngi course gi ba tey jii nga xam ne yàlla dogol na mu ngi wàcc julli na jàpp julli toog di werd sunu borom moom ko fa kon loolu ñun dañ koy dalam xel di ko ñaanal rek yàlla xaaree ko àjjana di ko jaale Sénégal gépp di leen ko jaale nag yéen waa Leewtoo ndax seen liggéey rafet na te li ngeen def am na solo trop ndax bu bu dee bànneex dangeen koy bokk nit ñi bu dee naqarit dangeen koy bokk ak nit ñi jërëjëf xale yi géejuwaay yi nga bokk ci espoir yi kii di kilifa yàlla jëlee ko fi tey looy def ci moom témoignage suñu papa Mor suñu papa Mor dafa nekk nit ku baax nit ku jullite mën a sonn si bu baax daal xam nañ loolu ci moom ndax paa bi daal baaxaayam foo ko natt rek weesu ko daal waaw di ko jaale njabootam yëpp ak monde làmb yëpp di leen ko jaale bu baax a baax ndax paa bi dafa nekk nit ko xam ne ñu amee combat day ñëw si moom mu conseil ñu ne ma dem leen daan ngeen ñëwaat waaw te foo ko gis moom kurus ngay njëkk a gisul loxo bi baabu jullite la bilaay baabu jullite dañ koy ñaan yàlla xaaral ko àjjana firdawsi yi waaw si mbiru géejawaay yi góor gi fi bàyyi tey loo ñu mën a wax si moom waaw moom moom suñu papa la moom suñu papa ju baax la moom suñu papa ju baax la mor fadam barke Seydina Mohamed ñu ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexu yeexuñu ak mboolem julli bu mu fekk tëdd si barke Seydina Mohamed àdduna nag c'est la vie nii la ko waaw ñii dañuy dem après leen di fekk ji li am important rek mooy jëf ju rafet daal ndax tey li fi nekk ci ay bu ko jëfloon du ko fekk waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te yeex ñu waaw ndaxte pa bu baax la dëgg yàlla man li may wax chaque jour rek li ma gën a marqué moom dama ne làmb lu mu métti métti métti métti boo ñëwee dem ci ginnaaw fi ñuy julli da nga fay fekk heure waxtu bu jotee mu dem jug dem julli ci heure boo ko gëstoo boo xoolee loxoom kurus nga siy fekk muy wér loolu man lu ma marqué woon la ci moom barke Seydina Mohamed ñu ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexe ñu taxawaay bi nag taxawaayu géejawaay la tamit ak képp koo xam ne doomu géejawaay nga xam ne père Mor Fara moom suñu papa la suñu lépp la wax dëgg neex yàlla waaw ñu ngi koy ñaan yàlla xare ko àjjante yeexe ñu ngi lay jaal yow tamit waaw ñu ngi jaal ah, yéen tamit di ko jaal axlu ko jaal Sénégal di ko jaal suñu bopp di ma saw làmb parce que 18 ci làmb la kaw làmb la dal jaal aussi suñu naataangoo bi zaal ndax suñu xarit la di ko ñaanal aussi tamit xam nga li bàyyam bétoon yëpp ci àdduna bi mu yeggale ko ci barke Seydina Mohamed waaw doon wax ci paa bi ci gàtt ci nekk bi ngeen nekk ci ay jikkoom loo ñu mën a dolli si loolu waaw nit la bu moo xamante ni sax doomu jàmbur mën na koo gënal doomam barke Cheikh Fall li may wax nii billaay wallaay doomu jàmbur mën na koo gënal doomam waaw maanaam wax ci moom daal dañu diis lool fi mu toll nii ndax xool yi dafa fees waaw dañuy jégalu bu wér nag waaw dañuy jégalu di ko ñaanal yàlla suñu borom xaar waajana ci barke suñu Muhammad waaw bëgg na mbaa war a jaajëf dalul suñu écrit bi kese tiis bi géej waay la daal parce que dañoo ñàkk ñun ñëpp a mu nekkoon suñu papa ju baax bu bëggoon géej waay doon défendre couleur géej waay kon jëmm jooj bu ñu ko ñàkkee rek dañuy delluwaat suñu xel ci yàlla waaw mooy li may faral di wax rek dëkkul fenn fu ko neex lay jaar heure bu ko neex lay jaar kon donc dañuy delluwaat suñu xel ci yàlla xam ne yàlla moo ko soxla jël na ko lu mu fi soxla moom mooy leen ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana gën a kawe waaw maa ngi nekk di entraînement salle damay génn ci saal bi rek ci lañ ma koy waxee ci lañ ma waxee nouvelle bi daal waaw ma mu nekk nouvelle bu ma choqué nag mais des fois lu may faral di wax la waxee dara rek da ngay dalaat xel si yàlla daal parce que ñun ñu di wax ak ñun kenn xam ban heure la ñuy dem waaw yàlla nañu yàlla fekk ñu fekk ñu jëf baax rek waaw di ko yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjan ci àjjan yi gën a kawe bu loolu weesoo buñ la xoolee macha allah li ngay ñaqee yaa ngi respirer la nga toll waaw xam nga boo demee fan nga toll dina xaw a doy waar trop du du ma ci wax nag parce que tiis moom ma fi indi tiis bu ma laal sam biir xol euh, waxu état indee guñu li ñu indi moom mooy di ñaana suñu papa Mor Fadam yàlla xare ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup